mbokk yi suivre Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare ki ñu jàkkaar loolu xam ngeen ko muy Bada Dione borom président école de Bada Dione yaakaar naa ne yow président bi Daouda Diouf waaye en tout cas daal yow yaay borom école de lutte Bada Dione Bada Dione bu bawal président bawal sans frontière ñu ñëw fas yéene waxtaan ak yow tuuti ci face à bi nga xamante ni face à face rata koy tuddee mu diggante tafaatin ak ki nga xamante ne moom moo di Boy Niang waaye nag lu ko jiitu démb làmb am na doxoon ci diggante Forza. ak ki nga xamante ne moom moo di la nekkoon revanche ñu bëree ko démb nga seetaan ko ñu laaj la ci sa xalaat laaj la tamit ci Forza kan mooy adversaire am dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi bala maa lay nuyu bu baax di la ci waaw Lamine ñu ngi lay fay di nuyu Sénégal yëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi di sant sunu ñaari waajur di leen ñaanal rek maanaam. yàlla yi atte leen ci yërmande ji gën a kawe ah di nuyu it balaa ñuy def dara sunu ay kilifa yoo xamante ne nii dañoo nekk ci bawol di nu jàppale muy ku ci mel ni Mor Ngom maire ndàngal ma ministre coordinateur département Bambey doon koo xamante ne nii comme danga may laaj ci tafaatin rek loolu moom ma ci andi parce que da cee def sest yu rafet wax dëgg yàlla tafaatin géej na bëre. te chaque jour lu bëri bu ñu ko soxlaa da koy taxawal àndi ko rapidement doon nit ku baax dem na ba boole noog ay nitam pour ñu jàppale Tapha ci combat bi ci loo xamante ne nii wax dëgg yàlla ci ci lépp ci finance ak lépp boole na noog ay kilifa te jàppale nañu kooku nit ku baax la te it wax dëgg yàlla loolu du gan ci moom gis naa ne heure bu bawal xewlee bu département Bambey xewlee saa yi nu ko wooxee mu woyu sinu li mu mën ak xelam ak xalaatam ak lépp xamal nu ne sunuy rak ngeen te du dem ci làmb du dem fenn dara intéressé wu ci bëggut sax ku ko tudd kon mënuñu ko bañ a gërëm di gërëm it sunu xarit Bamba Fall nga xam ne moom itam mooy borom Medina ku ne gis na ni mu taxawoo bawol bawol yi ci Medina ak it ni mu leen di jàppale ak sunu maire Refane Djib Thiaw ñëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm cuun waaw. macha allah loolu am na solo comme ni ma ko waxee rek démb làmb am na doxoon ci diggante forsa ak Pakala combat ba na mu déroulé na résultat ba ban gis-gis nga ci am ndax am nga ci mbetteel. waaw non mu Forza mosuma am mbetteel ci moom ci ci ci ci làmb amul leen loo xamante ne nii da koy def ci résultat rek mu di ba bet ci Forza amul parce que xam nga laan moo tax. gaa yi dañu ko xamut mais moom Medina la dëkk ñu dëkk ak moom mu nekk suñu booy parce que nit bu dee da ngay am euh, da ngay am lu baax day fekk nga jaar ci yoon wu baax parce que Forza doon na booy boo xamante nii booy bu yaru la booy bu dal la booy bu ñemee entraînement la booy bu am teggin la te it <laughs> mbër mënu ko mën na bëre mën na xeex. am na doole sérieux na te Forza li mu mën sax dëgg dëgg dëgg dëgg woneegu ko ci làmb ji parce que Forza boo déggee sax ñu koy wax ñii mooy blessure bi mu amoon te blessure bi yàlla dogal na nag mu nekk kilifa gu mat kilifa muy Pape Mayel Diop ak Abass Ndoy ma am ci lu ma leer ñu génne millions yu bëri faj ko faj bu assuré boo xamante ne nii amul benn bër bu mos a am gñnu ñu faj la faj bu assuré noonu. loolu tax instant bii bu tollu boo xoolee combat ak la man foogoon naa ne sax la lee mu am du ko am parce que xam naa forsa xam naa la waaw li ma ci xalaatoon mooy arbitre soufflé forsa ngàdd ko ba mu jaaxaan loolu laa njëkkoon a xalaat waaw. léegi ni démb bëre bi. non bi nan nan la bëree euh, bi demee. xam nga nan la demee arbitre dafa soufflé pakala xeex bi la xawa a dafa da bëggoon a daaw rek jeexal bëre bi parce que pàkka ku ne xam na ne benn palaake la yor ak mboot bi mu dikkee daaw song si forsa forsa deb ko sol mu bëgg a dugal loxo bi forsa xaji ko bi ko forsa xajee daqook palaake bi mu ko dàqeek plaqué pàkka la jéggi ko bëgg ko delloo palaake bi fekk forsa croisé na ëppal bi mu depp ko mm-hmm. waaw saaru nooju la ko def quoi mm-hmm. mbootu nooju la waaw da ko dëpp dëpp épaule bi boo xoolee moom la fi defoon xaadim de te def na ko moo du Awa fi mu tollu ba suba bu paka la jógoon fu mu jogaate da ko fay delloo diri ko da ko yokk ba mu tëdd loolu ku ko xam ku xam bëre xam li mu bëre xam ne it bëreem la parce que loolu moom mënu ci génn tant que sa épaule bi mu ngi ko croisé dangay dem parce que daf ko mone waaw nga xam ne mën nga ko am te it euh, Fass <laughs> man xam nga saal laa doon àndat mu nekk Fass ñaare seen mbër bu am fit am doole xam li ngay bëre nga daan leen ci yombul parce que ñoom dañuy répéter mbër benn kale bi nga yor mën na noo andi ku tolloog yow mu la koy def un mois pour que boo ko defee ñàkk seetaan naa bala bay numéro de combat mag Tafa Gueye parce que bi muy naax gars yi di leen lalli di ñuy jaaxaan ah yi moo moo won gars yi ni ñu koy defee waaw saa yu dikkee da ngay tap tànk yi bu dikkee bu dikkee bu dikkee di la laali rek nga korose ko door mbot mu tëdd booy kayre lañu ko jëkk a pare bi mu koy def bala bay karawaat ko ca kaw moo sàmp bopp bi mu jiitu bi tafaa ngay jëlee bala bay de ko xool tap tànk yi rek mu yéeg mu baraake ko mu jaaxaan nga xam ne loola lu mu liggéey la waaw looloo tax ma ne ñoom danoo am ay préparateur ba noppi xam nga ku ci mel ni sunu grand kati job it wax dëgg yàlla yàlla daa am lu mu dogal ci moom ku ne dañ koy nangul am na xam-xam am na sensu ànd ak mbër muy dem depuis ba mu déparé boo xoolee sàlloo bi muy jël drapeau chef de l'état kati moo ko yoroon Cheikh Mbaba bi muy jël jaase or ji di toj mbapat yeeg lépp katti moo ko yoral boo xoolee carrière u Tafa Gueye li ci neex yëpp katti ci loxo kati la jaar am na xam-xam aussi am na sens waaye ba ci Yékini dafa taxawal écrit bi nekk nekk roi de arènes kon ñoom fii mu toll tegu nañu ci lu leer nañ parce que du leen moo fa manqué bu nu amee organisation du nu neex a daan parce que. parce que kat yi moo waral loolu noonu Forza bëre démb am ndam ci kaw ci kaw Pakala combinaison yi nag am na ñoo xamante ne gars yi commencé nañ ko tudd kan nga jàpp ni mooy adversaire potentiel Forza instant bi. non Forza moom Forza ñëpp la mën a bëreel. am na ñu ko raw. raw raw raw daanaka gars yi ñoo bëgg a yàq lamb rek waaye mbër bu bëree grand combat ñaari yoon ñett kenn rawatu ko koo ñeme rek nanu la jox sa natt ngo Tyson bi muy bëreeg Tapha Gueye yaakaar naa ñetti ko la am bëreeg Tapha Gueye te boobu Tapha Gueye fi nekk Bombardier bi muy bëreeg Tapha Gueye amul ñetti victoire ah Bombardier bi muy jël bëreeg Tyson roi des arènes de li fi force am yi def defu ko ah? même ni bi muy bëreeg Bombardier ak bi muy bëreek Mor Fadam ak Ali daanaka Pouy de la daan rek ak kàddu geek Baye Fall bëreeg Mamad Ali bëreeg Mor Fadam bëreeg euh, euh, euh, Bombardier mais mber nag bu fekkee ni da na a nga màggee ko benn at wala ñaar mu bëree dix ans de carrière ngeen jëm vingt ans de carrière toujours nga ne mu defee restaurant <laughs> mu defee résultat nga ne agsiwul booy moytuwut gars yi dina nu magatal genn wàllu mbër yëpp magatal nañu leen parce que nit ki dégg nga olof ne ñetteel bu tofoo ñetti magat nit ki bu la màggee juróom benni at sax boo magatee mu magat kon nag li war a am mooy ku ci mel ni Lac de war na mën a bëreek forsa Lac de Guiers comme day match nil gars yi kenn mënu ko daan te Forza boroom doole la ñëw di ñëw war na nu mën a bëre. Lac de Guiers mën na ko daan. billaay wallaay wal asim buñ bu seen combat taxawoon nga waaru ci yàlla la déggee nag mën na daan mbër bu ne mais nag kii wallaay du sama mbër du question li mu dekk Medina tax du question li mu nekk sama sama booya tax mais dafa nekk sampion parce que ku jël ku am wax lu wër peng te it day bëre boo bu dikkee day bëre te boo dikkee day bëre te ñeme na am na doole te it làmbam dafay nekk dara mënu ko perturber ci làmb li war ci li nekk ci mbër yëpp mu ngi ci moom mais nag na nañu jamono yoo xamante nii ni mbër yi boo garaawee dangereux boo daanoon làmb ji yëpp it ñu naa laa agsi woo agsi woo waaye bu doonoon lu nooy ba nii ñoom ñëpp ku ci am problème war ba teku ne naa ko daan rek pour dem loolu rek moo fi nekk. mais Forza naa daan la dëgg. non ku mu mënul daan amul. mën na daan Lac de mën na daan Balla Gaye mën na daan tafaatin mën na daan Bombardier mën na daan ñi fi Modou Lo mën na daan Eumeu Sène amut benn mbër bu mu mënul daan fii ci làmb ci kooku kay maa la ko wax te bu nu ko ubbi loon mu am confiance bi mu am sax bi ñu am tegle ñaari victoire li war a nekk ci moom nekk ci man ragal naa ne sax gars yi kenn du ko ci mën a daan loolu sax laa gën a xalaat. am na ñu ne ñu ne ñu ne eggeegul foofu noonu de parce démb démb gis naa la démb naa la nga réagir sax ci ci benn groupe groupe njaay ba comme ñoo fa nekkandoo am di am di am di ba am bokkul ak am di beneen bu bi mu ni Forza Franc moom la waxoon ba ni ko bu leen jàppale loolu lu yomb la ci mais ba léegi li ma wax li ma wax ci yi rek laay wax ci Forza parce que mook Franc it amul lu tee ñu mën a bëre Franc amul Franc ak Siteu moom itam di man xam nga lan laa bëggul dama bëggul ñu tee booy yi. ñu doon ay mber waada war a mën a bëreek ñoom ñu bëgg leena a teena ak si woo kii dugg na fii génn na fee gis nga bu njëkk mber bu mëtee mber Tyson fan la jaar premier grand combat am la bëreet te boobu ngaylum mber mu mag la ni jaarut ci combat bu ndaw mook Tyson yëpp danoo dikk rek bëreek gaa yi Franc na ni toll na ni gaa yi bu ko amul ñetti combat di doy na pour nga bëreeg gars yi boo amatee mber mën a bëreeg ñoom ñime leen ah poids lourd gis mu tàkk fii maam njambaan bi mu jógee Kaolack presque ñetti combat la bëre bëreeg Mor te boobu Mor moo fi nekk di bëreeg manga ñuy niil ak lu kenn xamul ñetti combat la bëre bëreeg Mor xam nga kon yii nuy wax ni yëpp affaire ragal a fi nekk aussi promoteurs yi teg. nangu noo concentré wu ci li nu bëgg li jaadu woon mooy promoteur yi am na mbër yi bu nu àggee foo xamante ne nii képp ku ci yor sa cent million deux cent millions di teg combat bu mag ah nga taxaw wax mbër yi nga bëgg a teg jël ci mbër yu ndaw yi boole mbër yu mag yi ku ku bëgg a bëre bëre ñu xam ne ñii amut lu ñu mën a def yow nan nga mën a gis lu mat juróom benn mbër bëgg di bëre lu mat vingt ans mbër yi toog doon seeni nawle màggu ñu leen ëpp ñu leen victoire yow loolu bu ñu ko toppee mbër yi di di denu dem ba mbër yi mbër yi yëpp ay magatandoo te du ñu am dara di ñi lu mm-hmm. ñoom rek ñoo ci am dara man d'accord naa parce que força bu ma doon moom Franc duma ko bañ parce que xam nga lu tax duma ko bañ mm-hmm. ñi nga gis ci kaw yëpp ñuy bëre genn gi yëpp ku ci daanu benn yoon balam ba ku ci daanu ñaari yoon ñoom ñëpp daanoo leen fi bàyyi mm-hmm. parce que ku ci daanu rek bokkatoo ñu ci bëri ku ne ci ñaari combat ñett la ci bëre te ñoom Franc yi ñoo doon mbër yi nga xam ne ak ñoom rëg-rëg ñoom mbay guy gi ñoom kewel wuli de Boursine jëm ci sénéral bu Malika fils de Balla xam nga ay euh, booyu Lansar bi ay Mama Lamine Garga de Gorosok xam nga mbër yooyu noonu ay ñoom njaaxum génération yooyu ak booyi yoof yi ñooñu ñoo nar a jékki rek àgg ci tableau bi bëre ñooñu nag boo dikkee boog leen a bañ mën na noo toog nga bañ leen toog bañ a bëre ñu jaar fee daan ñaari ko mbaa la dugg ci gaa yi dootoo leen mën a jot parce que xoolal rek rek Franc rek tey guy gi la am te bu ko yàlla dimbali woon ci guy gi direct day bëre ak Bombardier yi nag gaa yi Franc noonu la demee est-ce que força war naa toog di xaar loolu parce que man du ma toog bu ma yootoo ñee kay jotuma leen ñi fi nekk ma yootu leen entraîné ba belende boo bari doole ñii fi nekk ma jàppanteeg ñoom dem ama seen ba mu mais ba lam bëgg koo woon lu mel noonu daakar bala gay yi nag ñooñu reyanteeg ñoom daan ci taxaw ak ñoom ga yi nii nag ñooñu sippi mu nekk feek ñoom loolu mooy mooy mooy affaire bi mais man duma xaar kenn kii xaar mooy kii kalkin nga ci day xam ne xëj na gars yi xaw na nu ko ëpp doole booy yi mu toog xaar mais força même mën naa bëriwaat vingt tey bëri doole parce que yaax bi la ak poids bi bu demee ba force vitesse bi jeex sax mën naa sarse pois bi di jàppante gars yi parce que ku ci mel ni yi ki nekk Bombardier xëj na ba seen aller jeexee yàgg na waaye dañuy mujj taxaw daas seeni loxo di xeex yow boo ñëwee ñu stoppé la palaake la nga jaaxaan wala ñu cabaxal la parce que bëre poids bi day fay xeex bi fay gaawaay bi di fay waaw te ok loolu am na solo kon loolu gis-gisam la ci combat bi nga xamante ne moom moo amuñ démb ak ki nga xamante ne moom moo def Forza waaye nag am na loo xamante ne mënu maa ñëw ba dem te duma la ko laaj seen diggante ak Tapha Tine coow li bari na ci léegi de fa seen diggante ak Boy Niang coow li bari na ci te mënu leen a def face à face bu sotti depuis boobu ak léegi. ah, ah ñun yaakaar naa face à face yi am yëpp amul benn boo xamante ne nii heure ba nu ñu jox teg nañu ci benn minute dina na dikk taxaw. face à face ba mooy yàqu ñu ñibbi yaakaar naa promoteur bi loolu moom problème promoteur bi la waaye ñun moom li ñu war a def def nañu ko parce que face à xam nga moom marketing la sponsor la promoteur bi la concerné ah moom bu foogee face à face yi ak. promotion di jàll ay sponsor am di am satisfaction nay def li mu war a def rek wut sécurité bu doy wut matériel boo xamante ni da da koy fay normal du am ak waa ji benn problème bu bu bu bu ko defee ay face à face am jàll parce que Gaston ñaata face à la def ba muy teg làmb ak léegi face à face mënul yàqu nga xool Abdou Fall sëñ Modou Niang Assis Ndiaye ak ñeneen ñeneen ñi tey yenn mbir yi rek la ñu teg yow nga bëgg mel benn combat nga bëgg koo yor ñetti face à face di yàqu xanaa ngay bonne affaire boo ko defee mu la baj <laughs> beneen ba nag ca loola nga war a jàngate ba bi yoon waroo mën a am benn faay parce que olof nee na fot ci ndab fotaat ci nag fuqale la mm-hmm. wala déet man de de loolu laa loolu laa ci gis léegi nag yéen da ngeen jàpp ne moom dafa faral camp bële de yéen bawol bawol non noo xam nga waxu supporter bokkul ak waxu ñi xam même bu am na ñu bokk ci staff bi te di ko wax. ci staff bi yaakaar naa menam Mbaye Ndew rek nga gis mu wax loolu. te xam nga mbay Ndew da ngay xool dynamique bi mu nekkoon bi mu koy wax parce que moom dafa ànd ak mbër mi ah. ñuy coowaloog boo xam nga boo ànd ak dañu lay saaga lu ne day am ak coow léegi yow heure bu ñu la dekkee micro mën nga mer. sa yaram tàng yooyu wax man du nekk ni moom laay considéré comme que mooy mooy l'essentiel bi. parce que promoteur bi mu ngi dëkk bawal di bawal bawal la ah te man wax dëgg yàlla gisuma leen loo xamante ne nii moom laa mën a sukkandeku ne dafa farake parce que yooyu sax nag daf ma intéressé wut parce que lii nga am ak moom mooy mu fay la nga boreel ko man bu fekkoon ni da nga koy gis suuru làmb ja daal mu dikk di sutti waa ji ay gàllaaj wala nga dégg ñu ne daa yóbbu waa ji ci sëriñ wala nga dégg ñu ne waa ji këram lay reer rek fa lay ànne kon ma mën na dafa farak moom parce que déjà Mbaye Ndew ni muy waxee burxaan wa dégg nga ay kàddoom parce que toujours danaa promoteur bi la du ko teg ci ñun te dama foog ne bu fekkoon ni dafa complot promoteur bi du am audace taxaw naa promoteur bi moo xamul wala moo deful li mu war a def parce que moom wax na yàlla man dama koy xaw a dama koy naaw ci lu bëri parce que nit gis naa ko heure buy wax day mesuré ay kàddoom da koy teg ci temps da koy teg ci ne lii benn journée la rek boo xamante nii day jàll. après ñu des fi bokk ndey ak baay. parce que man burxaan xam naa ne moom day soor loolu. te loolu it xëj na moom expérience am la parce que ménagère bu mag la parce que xam na ne komba mën da rëy a rëy a rëy ba yi jàll yaakaar naa tafaatin ku bëreeg Bombardier bëreeg Balla Gaye bëreeg Ceek bëreeg Abdou Diouf bëreeg Lac de te instant boobu ñoom ñëpp dañu la naan ñi ñoo la ëpp doole ñoo la man nga dem ba daajeek xale boo xam ne yaa ko jiitu ci làmb bu dee expérience yaa ko war a ëpp bu dee pois yaa ko ëpp bu dee doole yow la ñuy xalaat ne yaa ko ëpp dàqu laa xeex dàqu la bëre <laughs> xanaa nag loolu lan nga ci mën a dikk ba heure bi loolu di la jaaxal ba ngay commencé naa di wax fii ak wax fale booy ña mu ko ëpp doole booy ña non néew ma moo ko ëpp doole de dama ne bu dee doole nit ñi yaakaar na ne yaa ko war a mën a ëpp doole. yow yaakaar loo yaakaar. man moom damaa yaakaar ne Tapha ko ëpp doole. yaakaar est-ce que moo ëpp doole Boy Niang. non Tapha na ko ëpp doole nag waaye nit mber dañ ko ëpp doole mu daan la parce que bëre moom dafa composé ñaar bëre door doole gàllaaj lépp day daan nit ki mën nga ko ëpp doole mu nax la daan la. nit ki mën nga koo ëpp doole mën na la yeer dong ngay jàpp mu rocceeku nga daanu xam nga daan moom beneen affaire la maanaam mbirum sama boroom la mais bu doonoon ni man rek man mën naa ne tafaati na ko man fuuf. tafaati na man booy ñaaw foo teg loolu yow tam. wallaay wal asim bu doonoon ni da nga da ngaa dikk ba ci géej gi nga àndi leen teg leen fa ku ne takk ser nga ne leen nañu dem diis ah, yàlla xam na ne yonent bi diis yi bu ci am benn benn jël bu ko ci amee sens lay doon billaay wallaay wal asim. Tapha Tine da ko dàq bëre wala la. non bokkunu sax bëre. Boy Niang mën naa bëre de. non Boy mën na bëre waaye Tapha mën na bëre man xam naa ku ne ci li ngay bëre Boy Niang mën na bëre Tapha mën na bëre ñoom ñaar ku ne am na lu sa moroom amut. Tapha am na doole booy Niang mën nga ne am na rapidité boo xam ne nii mën nga ko dàq bëre sax mu dikk daan la ci biir ci ci ci gaawaayam loolu ñun mën na comprendre naa loolu. moom bu ñu juddoo ba léegi mi ngi koy jàng. Euh, parce que xeex ah bu koy jàngit de xanaa xaw ma kañ la koy appliquer. koy que kenn mosu koo touché. kañ ah kenn mosu la touché mën a xeex la wala mën a daw da nga naa kon moytu bi mu ngi koy jàng boog. non dawut parce que mosuñu ko gis mu sàq. déet yow itam. yow daal xam nga xam nga yow lan nga ma bëgg a àndil yéen yéen ku leen topp <laughs> ku leen topp boo moytuwul sax. non dawul parce que gis dañ fee gis ay. boo mber ma dina yaakaar ne kii daf ma bañ. te man bañoo ko mais sa mbër ngay faral nag loolu moom sañu ko bañ. booy ñaar sama booy la. booy bu yaru la. booy bu bu baax la it bu nite. man xam naa ko xam naa ne soo yi muy def nii yëpp mooy bëgg naa énervé waa ji jéem ko jaxase pour que mu waa ji mer mu mu yoxoosu ko daan. waaw bu noppee négocier waat nag ñoo bokk lii ñoo bokk la la xam <laughs> loolu loolu loolu lay wér mais yéen ku leen ci topp day dina yaakaar ne da ngeen ko da ko en mais booy ñaa xeex boo xamante ne nii da ngay xeex di deltu ginnaaw daase xeex kay xam nga bi bi bon mooy bi ngay attaqué waa ji fos yéene ko duma carrément waaye xeex boobu yow da ngay yëngal rek pour borom répondre nga sàcc ko. ah daal moom lu mu songe rek lay wér waaye xeexut. am na kum dóor moom daanu de. kan. Pape Sène dóoroon na fa Pape Sène dafa tarxis day daw Pape Sène dikk dal ci coup bi tarxis mu sonko mooy li ma la wax rek mais booba Pape Sène daw topp ko di. loolu tafaatin loolu bokkul tafaatin moom Lamine boo bëggee dégg-dégg li muy def moom mënoo koo xamee ci man lu du suuru làmb kooku moom bul son wax nag ci àdduna mënoo xalaat leen lu bokk ci bore bi moom loo xam ne moom mën nga ko jëlee fii moom bul sonn. ma jëlee ji air de Gaulle wala wala kii wala xës bu ñu ma waxee li boo ñaari bëri xëy na bu mu ñëwee di ngeen ma wax li tafaatin di bëri parce que a jixaat ak yéen. ñu la waxoon li ñuy bëri sax du leen wax li tafaatin di a parce que xam nga lan a tax. Hmm? ñoom dañuy lijjanti te ñun lu wóor la ñu yor man ragaluma bëre bi ragaluma xeex bi te xam na nañu moom ah li mu mën ak li muy def ak li mu bëgg lépp xam nañu ko waaye loolu nga xam ne moom la mën moom lay def billaay bu ca àggee di nga xam ne olof nee lu la mën lu ne boo ko jéema lay xeeb sa bopp lool lool lool lool awma ci sax lu may xalaat yow itam man lam bu ma demee ba ci janaxe kon lu may ànd mber mber boo ànd moom di tiit yow amul sens parce que mber dafa war a osé xam nga dal nekk fa xam li ngay def mën a xam heure bi nga war a dem mën a xam heure bi waa ji mën a ñëw nga mën koo taru ko jàpp ko loolu dañ ko war a xam te bu fekkee ni sa bopp nekku fa loolu doo ko calculer man li may gémloo mber mooy melal ni ku nekk ci géej gi rek takk ser di entraîner ñi ngay bëreet parce que jéemul yamal xiyaam jéemul dara daan daan lu ñu daanante daanante combat bi dansé dansé fi muy mujje rek mooy comme duubal lee si nag mbay yi nag maa nga ànd di demante dimbali wante di demante xew ak yëpp daanaka yëf yi moom daanaka bëre la sport la ah xam la laaj ak xel mais laajut xol laajut mer man làmb ji duma ci tàmm nit duma ci xas nit duma ci ne nit nii la duma ci ne nee la parce que loolu nekkul xel man awma lu may xalaat sax wala lu may jéem a tiit ci combat bi wala ma koy xal te Tapha loolu moo nekk si moom parce que Tapha mën na bëre <laughs> xam nga bu njëkk li ñu ko doon gémloo mooy nañu tee loxo yi bu nu tee sa loxo yi <laughs> mais booy ragal ku nu tee sa loxo danga dul mën bëre mais bu la leeree ne mën nga bëre lan ngay dox di xeex <laughs> mën nga bëre mën nga xeex mm, amul lu ñu ci mënut amul lu ñu ci xaarut ci combat bi jërëjëf bu baax a kooku moom amul problème waaw jërëjëf Lamine ñu ngi lay wala jeex na wala. waaw kon nag di nga. looy wax bawal bawal yi ak waa Medina ci combat bi. woo bawal bawal yëpp. waaw bawal sans frontière. fukki mu ngi ci fukki fukki paa non itam <laughs> Lamine. réserve ci bawal sans frontière la bokk. Euh, gis nga fii nañu nañu wax rek li nga xam ne moo fi nekk. yaakaar naa déggool yi nag Cheikh Mbaba yi la doon bëréwandoot mosoo koo dégg sax ñu wax waxu bawol déggool judo Pikine la judo wala déet Aziz Ndiaye mi fan nga ko xamal lu dul géejoway kulóoru way laay défendre fa la judo en tout cas Aziz Ndiaye baayam judoowut bawol ja judoowut géejoway ah te Aziz amoo foo ko adressé lu dul géejoway déggool pikin la judo judoowul beneen dëkk déggool papaam pikin la judoo fi ñu ko teg noonu man duma ko du ma ci concentré wu parce que kon man bu ma neexee ma ne Saalum laa dëkk parce que setu Mbégaan Ndour laa te Mbégaan a sañ Saalum mais bawal bawal la fala sama ndey judoo fala sama baay judoo ah ñun dañuy défendre couleuru bawal écrit bawal ñoom roi des arènes Pikine la ñuy wer Pikine 100 pour cent Pikine ñun ñu def 100 pour cent bawal roi des arènes bu nu ko amee Jurbel la jëm mooy sunu capital ah ñoom bu nekkee roi des arènes Pikine la jëm <laughs> kon kay wax dëgg lu nu boole Sénégal nag ñun ñëpp ay bokk lañu ku ne am na foo dekk am na foo cosaanoo waaye nag cosaan ci yow fi nga dëkk fi nga juddoo yaakaar naa mooy fi nga dëkk France sax boo fa juddoo woon tey dañu lay jàppe comme tubaab nationalité ngay am wala ñun ñi ci écrit bi yëpp koo ci laal sa sa sa sa sa carte d'identité région Diourbel département Bambey arrondissement Lambaye commune u moo ci nekk nga xam ne piir la muy ndey muy baay ñuy défendre bawol bawol yi bawol yëpp ànd ak ñun lamin bul nu nit sorxo sorxo bul nu nit booleeg waa njaareem bu nit naxasal xelu nit ñi booy ñaar dekkut jur dekkut benn bawol Boy Niang mu ngi dekk Pikine gi papaam juddoo fi maamam juddoo fi moom mu juddoo fi di défendre couleur Bawol mos da bëre ba ne maa ngi sant Bawol pikin lay wax ak Thiès gi yaayam juddoo kon bu ñu bàyyi ba mu bëreeg Tapha Tine rek ñu naa ay Bawol ak nangam nangam ak promoteur bi njaareem la dëkk ak di commencé wut beneen affaire boo xam ne moom la ñuy dugal pour jéem a kii nit ñi man duma wax ci caaxaan. parce que ñun ñëpp nag benn lañu ñun ñëpp bawal lañu dekk muy Boy Niang muy yow muy bu dul dara sax di sëñ Touba ñun ñëpp Sénégal lañu dekk mais nag ci biir làmb ci idée bi nuy bi nuy bi nuy défendre ah ñun bawal lañu dekk di défendre bawal moom muy défendre pikin waaye bu bëggee jël nag juróom ñaareel bi maam moom di wer di nga génnee am na ñooy génne Sénégal sax nag réew mi. am na beneen la ñuy kon. mu ko maa ne benn lañ jëm. ngay jéem indi ana am ñoo yóbbu indi nga naa lan boo ko bëggee topp noonu. xam nga ñun xumee xam na ne Mbégane Ndour moo sañ Saamel nduur gi ma dëkk Mbégane Ndour Saalum buur Saalum la kon bu la neexee nga ne ma Saalum bul ma neexoon tey bàyyi ba nuy bëreeg ku dëkk Saalum ma leen Saalum laa dëkk ci Mbégane laa dëkk mais du loola nag du tee nit ñi am ay xel wala déet eh, dégool yàgg nga ak moom de mosoo ko dégg ci Bawol. loolu yëpp nag amul solo booy ñaa waaw booy ñaanal ma baal nag sama booy la sama fiis la waaw mais nag nañu gérer rek bu jëlee roi des arènes yal na ko ko yàlla may ci carrière bu nu ko daanee ba noppi waaye bu ko jëlee na ko yóbbu pikin wala boog mu d'accord ne bu ma jëlee roi des arènes bawol laa bokk bokkuma pikin bu ko defee mook Ama Bal